que ñoom Pastef loolu mooy seen excuse lu ñu wax lu Sonko wax ñu ne ci campagne bala ko waxee woon mhm. lu Abbas Fall wax ñu ne ci campagne bala ko waxee woon mhm. lu docteur ba xawma kan ak kan wax mu ne ci campagne bala ko waxee woon mhm. waaye lu keneen wax ci campagne ba moom loolu moom day nekk pénal dañ koy woo il leeral ko man daal looloo ma jaaxal ci dossier parce que ma jàpp ni Cheikh il dans une liste investie nekk doon prétendre pour nekk mooy Cheikh tey bu jàlloon dem assemblée nationale est-ce que dañ koy jàpp am nga ndax foog ñu bàyyi caaxaan. Mhm. affaire bi daa commencé di flagrante li ñuy traité nit ñi nii opposition li ñu koy def nii. dafa commencé di flagrant mhm. pour man. bien sûr waa léegi dama lay laaj bu listu listu listu Cheikh Thiam. Mhm. bi mu bokkoon bi ñu ko investir. bu demoon dugg assemblée nan la ñuy def. dañuy dañuy dañuy dindi immunité parlementaire am. sañ nañ ko def immunité parlementaire mais ça serait ridicule parce que xanaa boobaa kon heure war nañ taxaw dañ ko dindi dugg assemblée nationale dañ ko sax dem parce que li Fall a gën a bi ko Cheikh wax a baax amal affaire mhm. man man man régime joxuma régime boo xam day appliquer démocratie wala day day appliquer la les day bàyyi citoyen ñu exercer liberté. Djibi est-ce que Djibi Djibi. waaw euh, est-ce que tey euh, justice bi ak ni muy doxalee nii tey mhm. est-ce que duñu duñu wax ni euh, justice des revanchards la en fait. waaw mais parce que parce que parce que parce que ñoom. ñoom ñoom dañ ñëw au pouvoir dañ jàppee pouvoir déjà. Mhm. que ni pouvoir boo fa nekkee da nga war a fayu par rapport ak li la defoon. Mhm, fi mu toll nii nee la. Mhm. képp koo xam ni mere woon nañ la. Mhm. wala képp koo xam ni amoon nga ak problème ak ñoom. Mhm. wala képp koo xam ne mës nga def déclaration boo xam ni neexul woon ci ci deru Ousmane Sonko. jàppal ni bu fekkee da ngay wax ci média wala nga wax ci plateau. bu yaboo bu baax nga xam li ngay wax da nga seetaat dal ka parce que xamal ni à la moindre erreur et au moindre dérapage. mais lay woo. bien sûr parce que loolu la bëgg ñoom. Ousmane Sonko wax na ko ci meeting. Mais clairement je suis le ministre je suis le premier ministre. Mhm. premier euh, ministre de l'intérieur de ko mhm. le ministre de la justice jox ko ordre da ko def mhm. Ousmane Sonko bien sûr bien sûr. il ne il s'encombre pas Ousmane Sonko ne s'encombre pas des procédures voilà des règles xam ne Mm-hmm. Kep kounyo wou a deman? Mm-hmm. Mm-hmm. Kep kounyo wou? Bakir roul fiyan la, nga dem wou yi jist. Dek lo jist, lom la det nga khabli non la. Ham gantan mok lolo lo? Mm. Paske Ousmane Sonko, bunye kato apon ti egzant, banmou diye chewon man, banye kanyo wou, mounen de wou man, ta hou bonkin, nyep di kou dek, a yi dek kou pi, wou yi jou mou jist. Mou mou mou mou.

Mm-hmm. je pense que doole bi ñuy teg citoyen bi. Mm-hmm. ak police ak gendarmerie taxawaay bi muy am ci wàllu politique. Mm-hmm. wax dëgg yàlla soxla nañu taxawaay boobu ci agression yi ñuy agressé ci mbedd bi. bien sûr bien sûr. nañu waxante dëgg. mooy dëgg. réew am ak war nañu wax nag nan moo tax nit ñu nekk en sécurité en insécurité. parce que yow boo toogee ci plateau wax balaa ngay pare. ñu woo la ne la kaay diligence boobu mu am ci politique. citoyens yi amee problème ak agresseur ak bande yi lañ dab nangu seen alal di leen rey di leen paat ak di leen gaañu bien sûr bien sûr kon nga xam ni kon quelque part ñun li ñu nekkee Sénégal moo nekk ci recul démocratique bu extraordinaire mhm, mhm. parce que defoon naa avec l'avènement de Pastef jomaay mhm. jooy naka fi bañ bañ bañ leen bañ ñuy nekk dans l'opposition Ousmane Sonko jooy naka fi bañ ñuy nekk dans élection mhm. mhm. tous les gens qui étaient de leur parti seen principal combat là la woon mhm. bu ñu yéegee daañu fexe ba procureur doole bi mu am ñu dindi parce que nangootuñu procureur boo xam ne ko heure bu ko neex servir servir nit convocation heure bu ko neex ñu yóbbu la heure bu ko neex ñu mettre la mise en euh, euh, que nuñ ko xeeti euh, ñu mettre la en garde garde à vue bien sûr ñu ne loolu dañ ko war réformer oui waa léegi am na réforme justice yi ñu yóbboon jam ñaajo <laughs> <laughs> réforme yi fan réforme yi fan la toll madame dañu faloon nit

est-ce que mhm. mhm. te li ci gën a li ci gën a doy waar aussi mooy euh, mooy ci côté justice bi muy ci côté ñi nga xamante ne nii amaan na euh, mooy intérieur ak ñu ni mel amul amul kenn kuñ ci changé peut-être ay ay changement de poste lay nekk maanaam ñi fi nekkoon euh, ci régime Macky Sall ba ba léegi ñoom ñoo nekk ci ñoom seen régime actuellement madame mhm. dama ne la gis nga li gën a ridicule ci li gën a ridicule ci waa Pastef mooy seen position bi ñu amoon ci am ci justice bi li ma foogoon. Mhm. code pénal dañ koy abrogé man lool laa jàppoon code pénal Sénégal dañ koy abrogé. Mhm. Mhm. parce que dañ koo kaasa kaasa kaas xam nga yaa ngi wax ay nit ñi nga xam ne déplacé wuñ leen ak ay ñi nga xam yóbbuñ ñoo fi nekk ba léegi. man dama ne la code pénal bi. Mm-hmm.